95 ak avec ak li Hollande 16 pays Mais suis meilleure danseuse africaine ministre de la culture euh, décoré Belgique le festival yu Maki représenté au Sénégal def fait des qui maître chorégraphie dem Sorano 2010 2013 ma dem penc mi def fa tamit anniversaire bu mag euh, bégal sama ay fans léegi nag nag quatre euh, vingt cinq ans de carrière bi ñëw nag euh, ma joxe thème violence faite aux femmes ndax am na ay jigéen yoo xam ne ne ñu ngi leen di dóor di leen rey ci seen néegu sëy xale yi tamit yu ndaw yoo xam ne ne amaguñ sax cinq ans six ans ñu leen di violer di yàq seen àdduna loolu nag mun naqari ma ma ne nag dinaa def sama anniversaire bi boole ci nag thème bu am solo muy violence faite aux femmes surprise yi bari na trop waaw euh, li limay conseiller nak euh, jigen ñi nga xamné né ne euh, dañu wara farlu wat ci sen bop waaw tamit yenn façon cholini yi gor ño xamné ne pédophile len tey jii suñu gissé nit ki romb sol ba wala sol affaire bo xamné ne jël na forme wala da parce que man démb rek dem euh Nord Foire gis benn bu jigen sol bijoutier sol short tatoué pooj bi mais loolu góor bu ko gis subitement rek sa xel day nekk ci leneen kon ñoom it dañuy agressé góor yi des fois tamit euh, dañ naan góor ñi la mais booy seet am na foo xam ne góor fu euh, foo ko toll rek ak sexe bu muy gis ci yow dootul bëggati dara lu dul song la wala leen ñoom ñu defaraat seen ay toogaay gën a am personnalité gën a valoriser seen bopp ndax nag am na góor ñoo xam ne ne ci sa comportement lañ lay takkee am na ñoo xam ne bu ñu la fekkee ci sa comportement dinañ la ci topp mais bis bu ñuy ut jabar la takk